bàyyi nañu seen soxla ñëw pendant plusieurs tours d'horloge ñu ñëw assisté may commencé ci maître El Hadj Amadou Sall ancien gardien maître Djibi Diallo maître Diakhaté du cabinet Boubacar Wade maître ABF maître Fa maître Doudou Ndoye gi maître Cissé ñëw na yokku ci maître Wéré ñëw na yokku ci ñoom ñëpp ñu ñëw taxaw ngir jàppale ñu waaye may beral may sant suma njaboot di sant suma sox parce que bi ñu ma bàyyee sax samay mbokk damaa damaa ñëw fekk leen si am ku ne ma mais bu gàll xoolal doomu ñu xamuñu kenn ku dul yow bàyyi li ngay def bàyyi politique ki ci nekk ci diggante bi ne ko mais Dakar nous on est déjà bien préparé. parce que loolu dafay dolli jom day dolli courage. may sant bu baax Wally ci taxawaay parce que démb moom aussi ak soxnaam nelawuñu ñu ngi jaabante di seet lu ma soxla lu ma bëgg ba ci xaaju kon maa ngi koy remercier bu baax moom Wally Seck ma ñëw rek li ngeen déggee coow parce que nag boobaa léegi gars yi dañuy nette man naa man naa yaay